Barthélémy Dias nee na mbir mi complot politique la waaye nag Macky Sall dina xam ne bési góor a koy bàyyee ba ñu ñu bu ñu saañum ngeera Macky Sall moo ko teree ne law waaye nag na ko leer ne Ndakaaru moom ko ñàkk te cohabitation dina am ci assemblée nationale ñi nga xam ne nag ñooy waa Benno Bokk Yaakaar dafa am ñoo xam ne bëgguma tudd sax xam ne ku violent la waaye nag dama am fulla am fayda moom Barthélémy Dias nee na Macky Sall ak ñi ñu teg seen mbir waaye nag dinañu ko coalition Yewwi Askan Wi Déthié Fall la tudd conférence bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar ñoom doon nañu ko def dégg nañ ñu tudd Saliou Sarr waaye nag Saliou Sarr moomee membre la ci coalition Yewwi Askan Wi waaye nag du mandataire mandataire bi dugg fi nga xam ne mooy direction générale des élections loolee ab la boo xam ne doomu Sampol Dias moo xëy ko laaj nee na kese rek dongo moom la ñu autorisé ngir nag mu daal nga xam ne mooy ab liste te loolee Déthié Fall ba Frontex moo leen jox autorisation moo leen jox sañ-saña ah ngir nag keneen mën leen a jox ab liste ñu koy jël te jox du am mandataire ah ab laaj la boo xam ne war nañu se tonto yéen a kaay Le Quotidien xëy ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñi xam ne ñoo mer futu ni ki démb canoo nañu ak tas ko du xabaar yi yekk musiba ak mbelengana Khalifa Ababacar Sall bi xëy san bablaj ah maanaam Khalifa Sall est-ce que jamono ji nag di sacrifier sénat ni ki démb génn nañu ab communiqué waa sénat ñaawlu nañ bu baax a baax maanaam piccong mbaaloo gi nga xam ne jamono ji moom moo am te élection yi jotagu la maanaam bras fer bi ñi nga xam ne nag ñooy ñoom nee nañu date bi nga xam moom la ñu jàppoon ngir ñu déposer liste yi ak candidature yi amul benn mandataire boo xam ne daan na koy respecté acteur politique yi waa sénat daan nañ leen di woo ci ak dal ci sérénité ci sens de responsabilité ngir nag ñu mën a amal élection yoo xam ne yu ànd ak dal lay doon élection yu apaisé yéen a kaay kii di xëy ñu élection législative yi fanweeri fan ak benn wa rasulillah waaye nag jamono ji ñoo ngi si après campagne boo xam ne bu chaotique la mbir mi doy na waar gis nga say ki nga xam ne moo am ci Benno Bokk Yaakaar ak coalition Yewwi Askan Wi doy na waar kenn ku nekk ma ngi tuumaal sa morom Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañu coalition Yewwi Askan Wi seen liste bi ci diwaanu Ndakaaru baaxu la waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee na leen yéen waa Benno Bokk Yaakaar waxuma sax seenum liste waaye nag élection yi ci boppam bu ñu ko jaaralee ci yoon waru leen a bokk ci élection yi yéen waa Benno Bokk Yaakaar ndax nag loi bi dafa wax lu leer nañ nañ nañ conseil constitutionnel li mu wax ci lu jëm ci wàllum dépôt parrainage dafa am lim boo xam ne nee nañ boo ko ëppalee maanaam jàdd nga yoon boo ko matalut jàdd nga yoon te ñi nga xam nañu ñuy waa benn bokk yaakaar ñoom dañ ko ëppal yéen i kaay gi di vox papale ñu xëy fekk fa waa benn bokk yaakaar ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñu bokk ci élection yi ñoom nag nee nañu li nga xam ne moo ëpp loole daal kenn du ko jël en compte si jamonoy contrôle de parrainage yi journal bii di vox populi ba tey ñu fekk fa professeur Ngouda Mboup ab constitutionnaliste la xelam màcc na lool ci jëm ci wàllum droit nee ma ci lu jëm ci wàllum constitution bi professeur Ngouda Mboup li mu wax leer na naññi nee na coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo nekkul ci yoon ñoom ñoo wàcc yoon ñoom ñoo juum ñoom duñ dem si élection yi bu ñu ko tegee rek ci dëgg teg ko ci rek ci dëgg ci li nga xam ne moom la constitution bi wax maanaam bu ñu génnul constitution bi yam ci biir constitution bi coalition Benno Bokk Yaakaar lu mu garaaw garaaw wurta dem ci li nga xam ne mooy élection législative ndax dafa ëppal li nga xam ne moom lañ ko doon laaj te loolu koy tere moom professeur Ngouda Mboup yemul foofu dafa am benn différence boo xam ne dafa am diggante entre entre phase de dépôt des parrainages ak phase de contrôle des parrainages loolee il faut ñu xam ko ba ci biir journal bi moom professeur Ngouda Mboup nee na li ngeen di dégg ci réew mi constitution bi moo leen fare kaw ay code électoral ak waaw nangam ak nangam nangam moom Ngouda Mboup ci biir journal bi nee na bu leen neexee ngeen jël kaa Malick Gakou ci élection présidentielle mais Malick Gakou dañ na ko yow Malick Gakou yow li nga déposé ci parrainage dafa ëpp loolu la benn bokk yaakaar lool ci lu jëm ci wàllum yoon nee na amul benn possibilité juridique buy tax benn Bokk Yaakaar bokk ci élection législative yi yéen a kaay gi di réew mi ko di jeexee séq waxtaan wu yaatu ak artiste bii di Fakoli Fakoli daat nay wax ne nag moom ndorte la ma maanaam da doon fecci danseuse de ballet la wana daat nay wax ne premier album ma version afro acoustique ma ngi ko génne ci atum 2010 nee na yow laa doon xaar la ko tuddee wana journal bi ne na moom nag Fakoli daat nay wax lan moo tax mu gëj seen musical